dugal ñin ci suñu enseignement fii tàmbalee primaire wala Sarr as màgg ak moom. Mhm. mais ay Pinet-Laprade. ak ak Émile Zola ay ay Émile Zola ay Victor Hugo. Descartes. non defal naa ma expliqué. ak ñoom Thalès. <laughs> ay Thalès. dëgg la mais ñooñu liñ ñu jàngal bari. Mhm. ñoom Hérodote. par rapport ak. jàngalewu sëñ Touba. Mhm. Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu anhu ñoom bàyyi na sax maam limaamu li ñu jàngale ci mbaax nga xam ni. ah diine joo ah. mën a bokk nag. wallaay mën na laa jëriñ. wallaay wallaay joo bokk ci jikko baax ju rafet. gars yi dofuñu de. tubaab yi dañoo muus. <coughs> dugaluñ ko benn yoon ci suñu enseignement. le sénégalais lambda wala l' africain lambda. chaque jour ñuy xeex di xeex pour ñu jël yooyu dugal ko ci suñu enseignement euh, euh, euh, primaire. Mm-hmm. wala secondaire. ca mës a dugg. parce que loolu tubaab yi dañ naan gars yi bu ñu nekkee ay nandite ñu. Uh-huh. ñun li ñuy dundee seen dëkk lañ koy jëlee. Uh-huh. et effectivement pour euh, pour pour t'appuyer tout simplement da ngay gis ni histoire histoire primaire boo demee. centre français pour dëggal li ngay wax. pour dëggal li ngay wax waaw soxla fii ngeen wolof bi di gën a baax man laa am yéen laa soxla donc ceci boo demee école. primaire. waaw boo fa tàmbalee. waaw seen histoire réew lañ lay jàngal donte sax ñoo ngi ci réew keneen c'est-à-dire ici les institutions françaises qui sont là dañuy def cours français histoire de la France. ay Versailles lañ lay wax Louis XIV. mais alors que ñun suñu école c'est vrai que c'est une excellente idée. ay qui a découvert les États-Unis dégg nga Christophe sax am na nu muy demee du moom. dé déglu may mais dama gis nga gis euh, Yacine tubaab bi dañ naan gars yi bu ñu nekkee naan di ñu dee. même boo demee seen dëkk boo jotee ak ñoom dañ naan la bu mu wax. sénégalais yàlla da koo may. mun a wax bu mu wax de. <laughs> s'il parle rek maar détail il va convaincre gagner ne pipe un mot. Mm-hmm. naan bu mu ko def buy wax. ñun li ñuy dundee ci ñoom lay tey jom lay jóge. mu wax de matière première ya fii lay jóge. exploitation bi ñoom nan la ñuy def. dañuy ñëw indi seeni matériel xam nga lii xew fii ci suñu pétrole bi loolu rek doy na exemple ñun yor nañu pétrole mais yoruñu bagage yoruñu machine yoruñu dara léegi benn tubaab jógee fa la ñëw ne la man mën naa ñëw exploiter pétrole bi après léegi ñu xool parce que yoroo yoroo bagage. comme micro bii tey moo fi bu fi bu ma fi toogee te newu fi wax nan lay génnee amul benn njariñ. kenn ñëw ne la léegi maa lay tegal micro fii comme ça ngay wax waaye nag su émission bi jeexee publicité jàll man damay fayee ko de parce que maa indi matériel yi ñuy exploité exploitation bi génnee sa wax jeeg yooyu pétrole bi noonu la mel waa dañuy wax ne moom moo yor matériel bi yor doole ji financièrement ñu ne respecté na le code pétrolier indi yëpp teg waa ji fu mu jéeg ñi kayit ba nga ko jox di permis bi ca la dem wuti ay client OBP fee Ah, euh, anglais woo américain yi fee waa Cosmos ñu dikk mooy wuy ma man am naa kayit <laughs> buy wanee ne bërëb bii moom maay borom kaay ma jaay la ko maanaam moom kayit gi rek la doon lijjanti moom pour am autorisation ñëw ci suñu pétrole bii ngir fas yéenee togg ak jaay. ku ko jox kayit gi. ñun ñoo ko jox. am kenn ku am kenn ku bokk si ñun ko associé ak. jaay ba pare am na lu tubaab bi wooyee royalties. maa ngi koy expliqué sul keroog ci pétrole bi. royalties dégg nga yaas barigo pétrole bu ñu ngacc ba génnee am naa ca nangam maanaam moom daa jaay ba pare de waaye mi ngi mi ngi am ba tey. nee na waar lan la journaux yi. waaw na ko fi taf ci kaw. mi ngi la koy tafal de. déggoo da nga koo xam nag maam Sidi yow dafa ah, dañoo bëgg a yàgg jéem leen a jéem góorgóorlu leen ci seen cosaanu réew. baax na. dëgg la wax ak xale ñu naan ñii nag dañoo màgget loolu màgget ko la nekk ay yëf ah. moo tax ma langaamu ci yow langaamu ci moom langaamu ci yéen ñeent man day doom yàlla buñ la mbas ñun amuñ jot de li nu mu tudd li nu mu tudd butéel butéel butéelu lan butéelu lan butéelu ndox ok ah waaw butéel butéel bu ah. butéel butéel c'est français ah, butéel butéel la wolof wax butéel mais loolu nu koy waxee ci wolof kon xamoo di butéelu ndox xam naa ni wolof day naan butéelu ndox butéelu ndox bu fi indi butéelu ndox bi ma ngay ma ngay butéelu ndox ma ngay dëggal nekk olof naa xola ah? butéelu ndox mi <laughs> butéelu tey nga ni gurtu doom. Ah, gurtu sax ba tey tubaab la. waaw gurtu tubaab la. yow lé waaw yow léegi léegi boobu xam nga ñu nekk ñu ay olof man du olof de xanaa xaw man damay débrouiller nii rek mais du ma olof man ay sérif ay soose ak ay séeréer ma jur. xaw ma dara xanaa xaw ma ne ma mbokk olof. mi may cedd bi moom dëkk ci ma xa jóg. olof baa ngi nii surtout la Dior Ngoné macha allah. ah kuy waalo waalo sa ak kooku di nga toog ak moom ci plateau di ko jaay olof eh. mi ngi nii. Ah, te mënul ñaar na ci moom baax na ci moom. waaw oh, kii li ngay li ngay amee li amee Yacine neex na ma trop. parce que day tax mu jàngi olof dina dégg dinaa dégg te dégg na sax nag ah kon yow yow yow yaa ngi wax léegi ma ne ma ne ma ne noonu la talaata alxames àjjuma bàyyi ma. yaa ko tey li ma la wax. yaa ngi wax léegi bisimilah. atia ñu dem. ñu daal di tàmbale. waaw ñëwal yow. le quotidien yéene kaay la koy tàmbalee ñëw ñun. ci ah moom tribune la ñëw. tribune la ñëw tribune tribune jox ko jox ko tribune. tribune la ñëw wala la ko waaw géej ndar moom li fi dee moom la journal bi voilà le quotidien waaw Pa moom mooy jox journal bi tey na mu ne ndar démb tàkk na problème mu licence de pêche la am na ay policiers yoo xam ne am nañu ay gaañu gaañu wallaay nappkat ya caxat caxatee nañ siège u OMVS ah, xeex xeex bu tar xeex bu tar xeex bu tar laas yéen kaay nañu talaata démb ja mm-hmm. ndara nga ca tund waalo gën a ne talaata nee na dekk talaata ji ca ndar waaw mardi de feu à Guet Ndar gis nga ko nii mardi de feu mardi de feu non ah pour moi j'ai entendu mardi de feu j'ai dit mardi de feu on mardi de feu j'ai dit mardi oui mardi j'ai dit mardi de feu ak géej ndax. talaatay safara wuli ex. voilà c'est talaatay safara. safara voilà c'est safara à ndax. <laughs> non pas voilà. ok gis nga ko nii. <coughs> démb gaay dëkk bi jax ram ko nul bonjour. ndekki li neex na. torop dégg nga. Euh, euh, merci man dinaa la jox sax seen que ah. alaaji kii lay def. dégg nga tere bi. Walfadjri ñëwal ngeen goo xam ne moom la nappakatee fipp démb. gis nga eh, nappkat kenn waru leen a yëngal. gis nga li xewoon Mbuur ñoom bokkuñu ñoom bokkuñu ak ay bokkuñu ak ñii de. baykat nappkat sàmmkat ñoo yor koomu réew kenn waru leen a mer. Ah, ah. yow baykat yi rek rek rek rek rek rek rek nee nañ la téeméer boo jël presque juróom-benn fukk juróom-ñaar yëpp. moom la ñuy def ci réew mii. Mm-hmm. ñoo ñuy dundal ko. boo ci génnee géej gi génnee ci eh, càmm gi luy de yow sa ressource yi nga xam ne tubaab yi ko jël dégg tubaab yi ko jël te kenn du wax tribune yéene kaay direct news ñëw ak ñun ci réew mi nag fi mu nekk nii est-ce que duñ fi mujj mujj indi rek ko ray ñu ray la que duñ ko fi mujj indi rek journal bi nee léegi dëkk bi daal ci ci deret daal daanaka moom daal mënoo xëy ah waaye nag journal direct news waaw nee na nag al waxoon na ko na nañ boo leen ko sangul mu sang boppam de. Hmm. te buy sang boppam ñëpp xam na lu muy sangay boppam. Hmm. loolu mooy ca la ñu a hmm. kaay ñun ci fukki sénégalais ak ñett yi nekk euh, Chine instant bi ay jirim ak ay baayo lañu. dañoo toog rek di xaar yàlla. ils sont dans le couloir de la mort. di xaar nag li tubaab naan délivrance. mel na ni ñu mënee la 1-0 ba temps ba mu jeex nga nga am dernier corner dugal ko stade ba xar. ñoom fi mu nekk nii yàlla rek lañ toog di xaar. parce que président Macky Sall moom xam na ne carrément ne ñoom mënuñu leen jëli. yéeme na. joxe na nag ay raison moom président amuñu moyen logistique dugg na fi personnel bi xëj na militaire wala bu ñu leen fi indee leen di dugal loolu nag tax ba waa rajo. yow loo si dégg loolu si dégg. kan di loolu ban nan nga ko déggee loolu loolu mooy mënuma ci dara. li ma koy wax. waaw waaye du waxam. kay bay. loolu moom du waxam moom. loolu moom. France suñuy part mooy suñu premier partenaire économique. jëli na ay doomam bay jëliwaale yeneen i dëkk di leen yóbbu ñoom ci seen dëkk yow mënoo ko kay sukkandikul sa partenaire yi suñu rek suñu partenaire la illaa tubaab yi ñoo ko defar di yegale autoroute à péage barki démb Ndiaye lañ ci agressé benn chinois fii ndax vingt millions mhm. conseil des ministres Macky Sall ci boppam ne bind ca ne il faut protéger les chinois là parce que bu ñu fi nekkul woon njaayam gerte gi maana day taali loolu dëgg Chine hmm, hmm, hmm. xanaa war nañoo mën a dimbali le témoin yéen kaay ñëw ak ñun ci séddale flyers yi waaw waaw waaw gis nga ngan di maamu jéego la Sénégal def waaye jéego ba daa arrière waaw dellu gannaaw dellu gannaaw gu rëy a rëy rëy séddale flyers yu tamit ci jàpp ay nit wàllu njàng mi grève totale moo am tey waa G7 moom teggiwuñ seen tànk ba léegi fañ na ko ña fa ba tey ah? waaw euh, kii nag Euh, cour des comptes ak rapport bi Gossas. <laughs> Gossas mooy chambre laaj alaaj la bàyyi nga yegg nga ngay wax ko. Gossas Gossas de dañu alimenter benn benn benn benn formation Baye Assane bu cent cinquante une personnes. waaw téeméeri nit ak juróom fukk ak benn. waaw ñu utiliser quatre cent quarante bana. madame Koundoul xam naa la lu xam dara. la ñu utilisé. non ceeb bi bi ak bu nekk war a def 5 25 kilos. waaw boo ko xoolee lépp 440 mbana la. waaw 157 151 personnes. maanaam kenn ku nekk ci formation bu benn fan bi xaw ma fan lekk nga ñetti mbana. foo Gosaas. kuy meeru Gosaas. Madiagne Seck. te maire Gossas bi nekk maire Gossas en même temps employé la ci maire bu Guédiawaye ñu ni. mu jëlee budget boobu. sama ndey ma ne ko ndaw jabe. cour des comptes bi moo génne càcco boobu. cour des comptes mais mais am na beneen bu boo xam ne nag man pour man mooy. mooy le soxla am na am na beneen mënu ko topp ah, Ahmed ma am na beneen bu ah bu Pape ma dégg mu wax ko. waaw. cent cinquante millions légumes par semaine. boobu boobu en na dana ci ñëw. 150 millions. non non loolu parce que naa est-ce que Baye jumul. loolu la wax ba toog sept ans Baye wax. Ah, mais nag comme que USB tam amoon na fi 90 000 kay. te ñun ñu jëndee suñu clé fii 2000 kay. waaw waaw. bon après c'est de 32 000. Aliou Diarra bi doon wax ah benn non eh, Aliou Diarra nee na benn mbana day alimenter 100 personnes. benn mbana bu amee yàpp sew personnes. 151 personnes utilisé 440 mbana. 7 tonnes. déggoo ma de ci 75 participants. session de formation adulte adulte. Ah, adulte ah. pendant huit jours d'internat. déglul de source A ak 4 tonnes et quelques. pour huit participants adultes ak soixante enfants xale moom laa totalise lépp mu nekk cent cent cinquante une personnes booy ngénte di def tudd tudd biir néeg daal tudd biir néeg mhm. yooyu ñuy def nga xam ne tudd biir néeg jàkka ji rek nga woo gaay ne ca koñ bi rek ak maire yi ñëw boo leen paqueté ñoom ñëpp bon du passé cent cinquante personnes mais mosuma gis kuy def tudd biir néeg alaaji jënd ñetti saako ceeb. ban journal la Ahmed. source a ñetti saako ñaari tonnu ceeb. <laughs> jëndaat 4 tonnes ceeb. muy ton tonnes ceeb. nga rangale mbana yi. ñaata bés. 400 et quelques nit. 400 et quelques mbana la ñu teg. ñaata bés nit ku nekk boo ko calculé day lekk ñetti ñetti mbana. moo tax gis nga gis nga kii gis moo tax gis nga évidence yéene kaay. Mhm. Euh, xaadimu rasul Thiam mi. Mhm. États-Unis la ne. muy xamal Sall mu ne ko gis nga daal sa rapport yi. Mhm. amul solo amul njariñ rapport yi leen rek lañ ko war a def moo dem ba mbëbës sànni ko sànni ko ci poubelle bi waaw <laughs> sànni ko ci poubelle bi les kaa ñëw ak ñun ci ñoo lànk balu nañ ak Ablaye Wade xam nga kilifa Y'en a marre li mu waxoon Ablaye Wade temps yi passé waaw gars yi nag nee nañu daal euh, ñoom euh, kii Aliou Sané ñu ngi jéggalu ablaay Wade quoi bu baax ci ci wax mhm. ñoo lànk authentique nag mujj naa am authentique waaw waaw waaw mooy ñeneen ñooñu waxoon ne dañoo war a toog ak Macky Sall. jaxase ñooñu ne dañoo war a toog ak Macky Sall. ñooñu ñan mooy beneen bi divisé. ku leen jiite mooy beneen ku leen jiite. on les a ah, divisé maam Cheikh Seck leen jiite. kuy maam Cheikh Seck. ah ah dama ko xam. comme xamuñu ko kay bokkul ñoo lànk. ah déet ci ñoo lànk ji la bokk. du jàll ci benn rajo wala benn télé élément boobu. benn ñoo lànk la ñoom mooy citoyen Sénégal yi. bu defee manifestation kenn du ko couvrir. su yi ñu dañ ñaax fayda. benn benn buubkatu mbalit rek ñu jox ko valeur. doy na waar. doy na waar jigéen ñi kaay ñëw ak ñun ci. ay caaxaan yooyu. Euh, coowal Petro-Tim bi. jébal nañ ko boromam bu yàgg. Hmm. enterrement première <laughs> bii Aline Sall mii rek ko makki. yàlla ñëw. maanaam maanaam ñu mënee la 4-0 temps bi des ay 2 ko. xam génn dem parce que fii mënu fa égaliser. à moins que rek miracle ñëw. yàlla ñëw rek yàlla ñëw rek. mais lii pour sénégalais yi xalaat ne coowu Petro-Tim bii dina enquête bi dina mujj benn. waaye suul gaz du ko teree xeeñ. ko teree xeeñ de. suul gaz. ñetteelu mandat. xëju ñett ñetteelu mandat moom xëju fi moom. ñetteelu mandat moom tonton sax moom dafa tonton du ko def. xalaatu ko sax xalaatu ko. non xalaatu ko xalaatu ko waaye xalaatu ko. mais mais mais gii maa ngi saa. waaw gii dafa war a génn non non gii moom dina génn moom gii moom. ngii moom day génn ci nii wala ci nele li ma Doudou Wade waxoon ci Karim ba nekkee ci kaso bi seen jotaay ma ne ko xalaat nga ne Karim dina génn mu ne ma neex naqari ñaari génn am mu génn ak bakkan wa ilaa mu dee ci kaso bi ñu génnee ko mais mosoo gis ku dee ñu suul la ci biir kaso bi kon Karim ci nii ak ki nee day génn Guy Marius Sagna ci nii ak ki nee dina génn Macky Sall ak Adama Bictogo waaw waaw Amadou Mahtar Mbow université bi dégg nga coow li ñu am 46 milliards yi. mooy université bi ñoo doon tabax jam ñaajo. xam nga xam nga lu ci wax loolu loolu président bi. Adama Big Togo. waaw ah. moom Macky dañoo tegoon deal. Big Togo bu sénégalais. Ah, Ivoire Big Togo di Ivoire yi. suñu passeport yi. carte carte. Ah, visa yi suñu visa yi. non non yi. ñu doon wax. waaw carte yi. waaw c'était avec lui moom la ñu waroon jox douze milliards yi. moom la ñu waroon jox moom la ñu jox remboursé. dégg nga laaj. Mhm. <laughs> moom Macky dañoo tegoon dil dil bi akalaate. au président. xam nga ay kii moom. ci partage du butin bi fa la ñuy diser l'autre. kan moo wax loolu. taluñu dem ay dikk doom day. Ah, ah, ah, ah déedéet non. ban journal ban journal moo wax. l'observateur waaw dama bëggoon mu non l'observateur moom moo wax Adama bi Togo ak Macky dil la. waaw dama bëgg ñu ne say kàddu la rek. non non quant à phrase nag mais ensuite là euh. les grands se retrouvent c'est au moment ah. du partage mm. <laughs> trois mm. papa disait de Thiès xaar ku dégg ah, ah, ah, Ahmed joxagoo tribune tribune jox naa la ko sànq yow tamit mm. wala ñëw joxaat ma tribune yéene kaay ñëw ci joxaat ma ba Assane Seck <laughs> day bind de bind rek def tubaab rek lay dégg tribune yéen kaay nag li mu wax tey moom dégg ngeen ko. ndar bi rek de ba tey xeex baa ngi nii géej ndar mu nekk di daal caax ya daal démb ñoo dagg. et ba ngoon gi ah jëm guddi gi. waaye yow man ñii def ay. même tey suba dañoo xëy sax ku nekk fukk lu ñu jàkkaarloo nii. taxaw di xool sama morom. waaw ku nekk kii. ñoo takk der yi. waaw tey suba. booy teg seen ay mool di déglu paa yi itam def nii taxaw di xaar. xam nga nag problème foofu bàyyi mooy guerre bi guerre distance la parce que géej moo dex moo dox suñu diggante parce que benn way takk den ñu mënut a dugg gerte daal. te xalaatuñ kenn ko. léegi booy yi lakk ay oto. fii ak kii kii infrastructure yi ñu am accès. waaw yàq. léegi nag way takk der yi ñoom amatuñu pexe ñu dóos seen lacrymogène ci gaal yi gaal tàkk. pour booy yi bañ a déplacé wu. loolu moo gën a tàngal xolu na ko. mooy problème bi yàq xam nga yàq la. Mm-hmm. loolu loolu loolu moom yàq la. ñu <laughs> la jaajëfal bu baax a baax kilifa gi. waaw waaw waaw kontaan naa de. Euh, alaaji dama leen jox rendez-vous vendredi. vendredi ah bon waaw ci ci waa nga xam ne yàlla def koo may. lu lu ma lay wax mu xam ko. et que dinaa ñëw vendredi. waaw waaye waaye waaye yàlla ne ko bis boo ko nettalee jour boobu laa lay jël. ko feeñal ginnaaw. <laughs> ala il faut maa lay introduire. maa indi maa indi kon kon kon nag. maa indi jërëjëf ci moom la ñuy <laughs> passé yonent yàlla Moussa la woon. ak jabaar ak ak ak bagaas. waaw waaw bi mu ne ngooy rek. man man nag damay dugal gan bu am solo. Ah. da nga tudd fi jigéen. waaw jigéen daa euh, dikk. jigéen kay jigéen kay jigéen kay jigéen kay jigéen kay jigéen mooy kan Ahmed bul sale Ahmed kon bi ñu ñëwoon ndax femme chic ba ànd ak bi gi. bi ñëwoon tam waay. waa gis nga kii mooy Mamiko. kii Mamiko. gis ngeen ko moom moo ñu fekk si euh, fas yéene bokk ci ñun Mamiko nuyu naa la di la dalal. Euh, fay naa leen bu baax a baax di nuyu tamit képp ko xam fekk naa la fi mes futurs collègues. voilà j'espère que vous allez bien. di nuyu euh, téléspectateur euh, Sen di leen sargal bu baax a baax. ñu di la dellu njukkal di la dalal bu bax a baax alors euh, une petite présentation de ce rubrique. Mhm. da jigéen a la ñor. Mhm. donc da nga nar a ñëw ak ñun bokk suba teel ci mbirum jigéen alors ce rubrique nar a le journal de la femme. oui rubrique bi le journal de la femme nar a tudd qui va mettre en avant les femmes sénégalaises. Mhm. aussi les femmes de la diaspora. Mm-hmm. ñu nar xool euh, li nga xam ne ñoom ñu ngi koy liggéey euh, ñi nga xam ñu ngi koy def aussi parler de l'entrepreneuriat féminin c'est très important wane ni que de Sénégal euh, jigéen yaa ngi ciy yëngu bu baax a baax waaw c'est important. Mm-hmm. dëgg la ñu di la jaajëfal bu baax a baax mu am solo mu am solo bu baax a baax ci suba teel. ndaxte askan wi daf ñu ñor. Mm-hmm. surtout seen TV askan bi daf ko ñor. bu ñ ko waxee dañuy dooleel jigéen ngir rek euh, mu gën a mën a defar oui mhm. oui c'est très normal parce que fi ñu toll nii ci àdduna euh, la femme prend une place très importante pour dire que c'est le socle de la société jamono bi ñu toll euh, yaa ngi gis organisme yi yaa ngi gis banque yi yaa ngi gis association yi jóge extérieur pour ñëw dooleel li nga xam ne moom mooy jigéen donc moi je pense qu'il est très normal euh, que qu'on en parle on parle de ce qui se passe dans le monde des femmes on parle aussi de l'avancement des femmes mais aussi li nga xam ne moom mooy ay exemple lañ ay référence ci jigéen ñu mettre leen en avant ba képp koo xam ni euh, jigéen nga nga mën a jàng ci ñoom nga mën a xool ci ñoom aussi pour euh, pouvoir se parfaire c'est important. c'est parfait <laughs> kon nag dinañ la xaar bu baax a baax Pa Assane bàyyi la nga sànni si euh, tuuti kàddu chute nga def <laughs> mag bu neen mi mu wax <laughs>